jërë ngeen jëf mbokki eh, internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di eh, jaajëfal yéen ñu ñuy teewloo ci seen bii di naar actu yi dal leen ak eh, jàmm diggante la ak Serigne Saliou Gueye tàngoon na eh, jër nag gannaaw ba nga xam ne nag moom Goumbala mi la daal di na yëkkati ay kàddu dal ci kaw kii di eh, Serigne Saliou Gueye bu baax a baax waaye nag moom Serigne Saliou Gueye bàyyiwu ko ca benn yoon moom Goumbala nag da daal di yëkkati ay kàddu rek dal ci kaw journaliste yi wax na nag am na ñi nga xam ne dañ doon wax ay waxi coup d'état ci réew mi. barke sëñ Touba maa ko dégg ñi théorisé fi coup d'état ñu ne bu waree nii il faut un coup d'état coup xam nañ li muy jur pays yi fi def waaye eh, yaa ma leen gën a xam. ay journaliste ñoo ko wax ay journaliste. waaw mais il faut cesser ce que vous dites. waay waay bàyyi li tamit ci ñooñu sax yi ci nga. sa ko. yaa ngi ne dàq yàq bu dama ne sa manipulation yi ngay def bàyyi ko. defuma leen sama candidat bi moo wiiri wiiri yëpp waxal ne sama candidat bi leen ko moo ca noonee nag la coow lay bari bari ndeke uh, moom mii di uh, ngumba la nag la mu bëggoon a wax rek mooy ne candidat bii rek moo daal di fiy nekk na néew fii ndax nag moom ngumba ngumbala daal dina yëkkati ay kàddu dal ci kaw Serigne Saliou Gueye bu baax a baax ne ko lépp nag lu daal di yàqu ci opposition bi yow Serigne Saliou Gueye yaa ko yàq moom Serigne Saliou nag xamal ko ne ko li ngay wax rek ab guddal la wiir wiiri rek jaari ndaare taxawal nga daal di ne nañu jàppale sama candidat bi loolee nag moo gën li nga nekkee ca noonee nag moom gumba la mu daal di yëkkati ay kàddu dëggal boppam dal di ne candidat moo fi gën te nag candidat am du kenn ku dul Déthié Fall moom nag yëkkati na ay kàddu wax ne rek kii di Déthié Fall moo dal di gën ci réew mi te it mooy candidat bi nga xam ne nag moo gën moom ngumbala loolu mel nag dal di wax ne kii di Déthié Fall moo dal di gën. Déthié Fall moo fi ne keneen néew. ah mu waa kay a ne wàcc daan na ci gën a gaaw. a gaaw ay pousse la ku leen di élire fii. ah mais tu as favori sa Saliou lépp lu yàqu fii dans l'opposition yaa ko yàq man yow yaa ko yàq ne moom Déthié Fall moo gën te mooy candidat bi nga xam ne nag moo daal di gën ca noonee nag mu daal di songaat ki nga xam ne nag moo di Serigne Saliou Gueye ne lépp lu yàq yow Serigne Saliou yaa yàq lépp li li nga xam ne ne yàqu na ci opposition bi yow sëriñ Saliou yaa ko yàq moom mi di ngumbale nag bàyyiwul Serigne Saliou benn yoon ndax rek ma nga yëkkati ay kàddu naan ko yow Serigne Saliou ku mën a yàq nga te nag lu yàq fii ci opposition bi nag yaa ko yàq te nag ku mën a yàq nga noonu nag la ko waxee moom. mën a yàq nga. tu n'es pas obligé ku la déglu rek tu vas foutre l'opposition. Gumbala Gumbala da ngay ah nee na c'est ton souhait. pourquoi je le souhaite. c'est ton souhait. man bi may waxal c'est ton souhait. sëñ Saliou bande ba bi nii c'est pas vrai. bi may xeexal Sonko xeexaloo ko. dama ne waaw c'est ton souhait man man man xeexal man pourquoi may xeexal Sonko pourquoi ma koy xeexal. fàtte ngeen mais yow yàq dong dong muy sële. alors sëñ Saliou on a vu boo ko waxee mu naan je suis expert électoral il prend des airs de je ne sais pas. c'est un éditorialiste père yow yàqkat nga. ak journaliste mel ne yow. mais nag yow aussi yow manipulateur nga. moom Goumbala nag mu daal di jàkkaarloog Serigne Saliou Guèye ne ko yàqkat nga te nag yow la journaliste du mel ni yow noonee nag la ko ngumbala waxee jàkkaarloog Serigne Saliou Guèye daal ko koy wax mu mel ni nag moom Goumbala Mile ba muy ñëw nag dafa guuxal ki nga xam ne nag moo di Serigne Saliou Gueye ndax nag wax na ko lépp nag la nga xam ne rek moom la ko bëggoon a wax ndax nag képp ki nga xam ne nag yaa ngi ñëw ca plateau boobule dangaa war a ñëw rek ngir daal di wax ci xam-xam débat la nga xam ne nag moom lañ daal di teg ci table ji ngir nag ñu débat ci réew mi ak xam waaye nag mel na ni moom Goumbala Mile dafa daal di ñëw jël xam-xam tege leen daal di fas yéene rek daal di dal ci kaw kii di Serigne Saliou Gueye bu baax a baax ndax kàddu ya nga xam ne nag daal na koy yëkkati fii jëmale ko ci kii di Serigne Saliou Guèye ma nga naan ko yàqkan nga te nag journaliste du mel ni yow mu mel ne nag dafa jugoon rek ngir daal di xas kii di Serigne Saliou Guèye moom mi di Serigne Saliou Guèye nag ku nekk daal di nay ràññee. li nga xam ne nag moom la daal di nekk ne nag moom Serigne Saliou Gueye Mille journaliste bu man li nga xam ne nag moom lay daal di def la mu nekk li nga xam ne nag ñëpp daal di nañ ko koy nangul ne Serigne Saliou Mille ko xarañ la te nag ko xam li muy wax la te nag ku man li muy liggéey la muy méccam journaliste Mille waaye moom gumbale nag nangulu ko benn yoon ndax nag mi ngi dal ci kaawam di ko wax rek wax ji nga xam ne nag moom la benn yoon